yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak télévision Leral une fois de plus euh, dans le cadre également de nos grands reportages ak visites yi ñu def waaye tamit tukki nemmeeku yi nga xamante ne dañ koy defal jegleel ko askan wi fasanti bi la yoon ñu ngi fii ci euh, Tëngéej rawatina fii ci Rufisque Ouest quartier Jokkul fii nga xamante ne euh, sujet bi ñu fiy waxtaanee moom mooy avancée de la mer ak érosion côtière waaye tamit aussi installation usines yi nga xamante ne ñoo nekk ci wërndal euh, quartier bi mu nekk euh, sujet boo xamante ne bu am solo lool bi nga xamante ne moom la ñu doon waxtaanee ak askan wi fi nekk ndax boo gisee am na benn barrage bu mag bi nga xamante ne teg nañ ko fi ngir rek mën a baare ndox géej bi nga xamante ne mu ngi avancé jëmale ko ci euh, kër yi loolee mu nekk loo xamante ne euh, lu am solo ndax barrage bi euh, askan wi ñoo daan lëkkaloo ak banque mondial mi nga xamante ne ñoom ñoo financé euh, barrage bi nga xamante ne moom lañ fi teg ngir bare ndoxu géej bi. sujet boobu dafa fës loolu fii si Jokkul ndax érosion côtière ak avancée de la mer dafa nekk réalité fii ci gox bi ba tax na askan wi di rafetlu barrage biñ fi teg waaye tamit aussi di ñaax ngir rek installation usines yi nga xamante ne ñaari yooyu la ñu am fii ngir rek ñu mun fa embaucher euh, ndaw ñi ndax boo xoolee pêcheurs yi fi nekk presque quatre-vingt pour cent ci ndaw ñi fi nekk donc amuñu liggéey amuñu xëy moo tax it tamit aussi ñuy ñaax ndax usines yi nga xamante ne dañ leen installé ci wér bi ndax ñu mun a jël ndaw ñi pour ñu liggéey waaye insécurité bi ak it tamit aussi éclairage public waxtaanee nañ ko ak askan yi nga xamante ne ñooñ lañ fekk fii te di rafetlu tamit aussi suñu teewaay fii lan lañ mun a taataan kontaan ci seen i kàddu ñu dem teewlu leen euh, ci li nga xamante ne loolu la ñuy wax jëmale ko ci mbir mi ni mel. gannaaw ba mu nekkee ci bët gànnaaru département bu Rufisque Diokoul nekk quartier traditionnel fii nga xamante ne foofu la fekkee baax ñu bëri ci communauté lébu te it nekk en face océan Atlantique dëkk bi nga xamante ne daanaka ay nappkat ñoo fa nekk waaye it mu am benn particularité bu mucc ayib gannaaw ba mu nekkee ci zone franche industrielle bu commune bu Rufisque ab askan bi nga xamante ne daanaka ñu ci bëri ay ndaw lañu jokkul comme yeneen dëkk lëbbu yi fii nga xamante ne ay nappkat ñoo fa nekk daal di fonk lool cosaan waay it di fonk communauté bi nga xamante ne jaraaf moo ko jiite ba tax na ñiñ fi fekk di fàttali taxawaay jaraaf ci communauté lëbbu. waaw loolu nekk na histoire boo xamante ne bu yàgg la waaye bokk ci jaraaf yi mais nag am na ay jaraaf yu fa nekk. jaraaf nag am na rôle yoo xamante ne yu am solo yu mu daan joué si biir lébu gi parce que jaraaf boo ko calculer moo daan nekk ndawal lébu yi bu ñu masaan am lu ñu naqari mbé waaye ñu am lu ñuy yónnee moom lañ ko daan wax mu dox ko kon nag dafa nekk euh, ndomba goo xamante ne gi bu am solo la si biir lébu te lébu daf ko mas a respecté léegi nag peut-être jamono mën naa tas ba mu demee neneen mais toujours jaraaf daal nekk na loo xamante ne si nun cosaan la boo xamante ne toujours dañ ko maintenir boo koy seen fu sori quartier biile di la won atmosphère bu baax waaye it dund bu rafet ci wetu océan Atlantique mi nga xamante ne saa su ne da ngay gis ay vague di ñëw ci wax yi loole nekk mbir bi nga xamante ne yeneen saay dañ ci am ay jafe-jafe ci wàllum bruit boobule. d'ailleurs bu géej gi ginnaxee ba commencé di dal si barrage bi wala muy dal si mur yi defe naa dina créer ay pollution sonore doo nelaw foo toll da ngay dégg bruit bi bum buum buum bum loolu conséquence la beneen bi mooy kër yi dangay gis ne kër yi daf leen di daf leen di day dal si miir yi daaneel na miir yu bëri kër yu bëri daaneel na leen donc nag loolu conséquence la aussi ci mbir mi bëri na tey boo ko doon lim doo fi jógee mais da gis ne dem na ba assurance sax amatul wala dëkkuwaay bu normal ci kër yi pour nit ñi mën fi toog. ci loolee quartier traditionnel boobu di jokkul boo xoolee ay jafe-jafe yu tar la ñuy dund ci at yi ñuy weesu loolee dara waralu ko lu dul érosion côtière waaye géej bi nga xamante ne saa su ne mi ngi avancé. avancement bi nga xamante géej gi mu ngi koy def demoon na ba yàq ba jël tefes gi lépp non seulement jël na tefes gi mais léegi ndox mi day dugg ci biir dëkk bi. bu daal masaan géej gi masaan ginnax bu ginnax bi dalee day dugg si biir kër yi. dans dix ans boo fi ñëwoon euh, géej gi euh, mu ngi toll woon fële mais boo xoolee géej gi mu ngi ñuy song te boo xoolee population jokkul ay population yoo xamante ne dañu sosoox géej gi boo xoolee barrage bii ñu mujjee defar nii loolu yëpp pour pallier loolu la. di si ay solution nga xam ne avancement de la de bi du toxal kër yi wala du toxal population jokkul yi. avancée de la mer bi moom parce que boo xoolee. géej gi ay jamono mu woon fële à peu près ay cinq mètres dix mètres noonu si ginnaaw quoi mais lii du Diouf wax léegi sax si laay gën a revenir parce que moom wax na loo xam ne nii euh, man dama jàpp loolu moo gën a avancé avancé de la bi quoi parce que chaque instant ngay sëkk di sëkk di sëkk xam nga tey jii booy sëkk rek di sëkk rek ndox mi day gën a dellu day gën a pousse di gën a arrière. mais après day répété joué fii nga xam ne ni mooy suñu dëkk suñu dëkkuwaay yi moo a instant yi géej gi ni muy avancé nii bu baax bu baax quoi loolu nag nekk na loo xam ne ni man daal jàpp naa ne euh, buñ ci jogul géej gi bu demee ba fees am doole nii day percer barrage bi te bu percer barrage bi day tuur canal bi day jël lu bari dem vidéo ko fool si côté côté kaw yi kon donc loolu war nañ ci a jël ay mesures. suma avancement géej gi moom si suma si suma si suma si suma expérience. si parce que yaakaar naa ma maa ngi cinquante huit ans suma expérience naa ne loolu lépp li ñu koy gën a yóbbu mooy port. parce que sëkk bi ñu sëkk foofu mooy ñëw mooy répété fii si loolu moom man moom maa maa ko garanti moom suma expérience la nag te yaakaar naa loolu moom moo am. mu nekk mbir bi nga xamante ne ñàkkul am na ay jeexital ci wàllu dundu askan wi ci gox bi. amoon na conséquence avant ñuy def barrage yi boobu amoon nañ difficulté parce que ndox mi daan ñëw ba dugg ci biir kër yi ndox mi daana dégagé ba ñëw di dugg ci biir kër yi mais léegi euh, ça comme am nañ barrage bi alhamdulilah boobu ba léegi sentir ñu euh, yàqu-yàqu yi muy def kon barrage bi am na solo trop ñun boo demee ci jàkk ji barrage bi taxaw na jàkk ji ndox mi da ndox mi da ci géej gi di dugg ba ci jàkk jàkk ji bi aussi ndox mi noonu la ak yeneen kër yi mais fi mu nekk nii barrage bi arrêté na yooyu je pense que dans quelque temps dinañu am bu yàggee daal incha allah yàlla di ba dina baax ñun. conséquence yi mooy indi géej gi saa yëngoo bu dee guddi la bu fekkee gaal yi si tefes daf leen di yóbbu géej daf leen di tëmbal beneen bi mooy tey érosion côtière bi day jouer aussi si système euh, euh, changement climatique bi ci écosystème marin bi tey xeer yu bëri nga xamante ne da nga ko mënoon utiliser tey écosystème bi yàq na bu fekk si kaw. daf koy dugal si biir géej gi nag mbalit yooyu si biir xeer yi la jëm te fii amul ay dépotoir boo xoolee à chaque fois géej gi bu am bu yëngatoo rek day dem ba jouer si ginnaaw kër si ginnaaw barrage bi il paraît que foofu yëpp day am ndox te loolu amuloon bu jokkoon amuloon bu jokkoon bu jokkoon dina géej gi dina yënga mais boo xoolee si ginnaaw barrage yi ba almere yi doo gis fu ndox di ka jàlle mais léegi ndox bi da koy percé du ko si biir almere ba tax na mbir ma avancée de la mer biile tax na ba ay sëg yi nekk foofee daal di nekk ci ay jafe-jafe quai de pêche mi nga xamante ne foofu la nappkat yi di nekk moom it jafe-jafe lañ ci gis ci wàllum avancée de la mer biile looloo waraloon commune bu Rufisque Ouest daal di lëkkaloo ak banque mondial ngir ñu tabax foofe ab barrage ngir mun a baare ndox géej bi non man xalaat xalaat naa ne barrage bi fi ñëw bi nga fi tegee ak léegi wax dëgg yàlla am na lu bari gàllankoor yu bari yoo xamante ne nii moom fatt na ku lu mel ni armée yi da daan gis sax ay ay euh, yax di feeñ ay boppa yi di feeñ ñi waaye bi ñu fi tegee barrage bi ba léegi wax dëgg yàlla ko kon kooku moom jarul ngeen kër yi nga xamante ne nii seen ndaa ndaa yi ñu daan naan da daan dem géej kooku kon am na lu am na njëriñ. la comme ni nga ko gisee banque mondiale financé woon ko à travers. Euh, euh, l'État du Sénégal mais ñu am chance mu ñëw suñu commune Rufisque Ouest le maire de cette commune porté woon ko Alioune Mar ñu koy nuyu au passage donc barrage bi nag ñu ngi félicité aussi fa mu commencé ba fi mu yëgsi ndax wax naa la que léegi su dul woon barrage bi armée lii na ca ginnaaw jóge na fi waxuma la armée mais kon kër yi dem nañ seen yoon boo xoolee barrage bi daanaka ëpp na. Euh, trois cent mètres donc dañuy féliciter initiative bi. mais fi mu nekk nii ça va mën nañu wax ne ça mais bu njëkk boobu metti woon na moom boobu barrage amul woon waaw da ngay gis ndox mi di dégage bay dugg ci biir kër yi waaw donc ñiy jege kër gi yëpp yàllaa ko def mais nag mën nañ ko ralentir. barrage yi bokk na ci li li ko ralentir donc loolu buñ ko lawalee ci réew mi ci ñi nga xamante ni ñoo am géej. loolu boo dina baax boo demee yéen moom la ñuy jooy boo demee bari moom lañuy ñuy jooy boo demee Saint-Louis moom la ñuy jooy. bii nit ñi yuuxoo ñu indi barrage bi vraiment barrage bi moom defal na nu fi loo xamante ne daal c'est extraordinaire parce que avancée de la mer bi barrage bi arrêté na ko lu bari. parce que léegi ndox mi même bu dalee si barrage bi dina dugg si kër yi mais nag dutuñu sonal comme na mënu meloon amoon nañu problème si tefes gi parce que bu masaan gàndax gaal yi ngay gis fii yépp dañ ko daan yóbbu sa kaw a kaw duñu am fu ko def. mais depuis bi barrage bi ñëwee bu léegi vraiment may na nañu aussi nu mën a teg fii suñuy gaal amuñu espace nag mais lépp li nu am barrage bi sauvegardel nu kii wal nañu ko. waaye boo xoolee am na lu bëri li nga xamante ne commune bi manqué na ko lu jëm ci wàllum infrastructure de base buñ sukkandikoo ci ñi fa dëkk. léegi nag loolu dafa doyul moo taxoon ñu wax suñuy doléance wax fii ñu nekk ni nga xam ne un parcours sportif moderne lañ fi bëgg. ëllëg pourquoi pas Sénélec ñëw def fi lu bëree bëri def fi un parcours sportif moderne def fi un lycée de Jokkul ak leneen ak leneen loolu moo taxoon tey bu ñuy wax sax xol lañ waxee. yàlla dafa dogal ne commune yëpp commune de Rufisque ouest rek moo fi amul lycée moo tax sunu élèves yi chaque jour dañuy jéegaani comme ni nga ko waxee génne di dem si ku noor bi wala Rufisque est fu sori di fa jàngi jee léegi si loolu la benn groupe bu ñu naan groupe Jeunes Diokoul association bu ne si Diokoul ne pourquoi pas un lycée à Diokoul ñu ne woon si nag def si ay mbébét yu bëree bari léegi nag ça fait l'occasion dans le cadre de la responsabilité sociale ñu ne waa Sénélec pourquoi lycée boobu du ñu ko jël en compte si seen cadre la responsabilité ñu defal ñu benn lycée boo xam ne bu ko defee suñu élèves yi du ñu mën a teel sori dinañ yem fii seen dëkk jàng fi ba réussir fi. ba demee fu mel wala Caaroy wala Bargny ñoom ñëpp taxu nañ te ñoo ñoom ñoo bokkoon benn alignement donc ñun bu ñu demee ba toog fi ba tey barrage bi bokk na si li ñu téye loolu nag du lu ñu gënal aussi parce que amoon na ay initiative yu mu àndaloon mooy délocaliser population yi dëkk fii bu leen Jaxaay wala Rufisque 2 mais bon tous ces projet est tombé à l'eau te tey defe naa ne fii desatul sax fu nit dem donc on on est obligé de rester. beneen bi mooy ay nappakat lañ nappakat nag moom boo ko jëlee si boori géej boo ko taxalee sa biir àll ba rey nga ko mbaa nga sonal ko. xam nga boo xoolee fële ngay gis ne la mooy Cap des Biches tey moom la ñuy wax zone France zone France industrielle plus de trente industries sont installées dans cette zone mais bénéfice bi ak population bi bariwul tey da nga waroon ñëw Rufisque Ouest fekk fi ay hôpitaux yu moderne danga nga waroon ñëw Rufisque Ouest fekk fi ay district de santé yu moderne dernière classe tey da nga waroon ñëw Rufisque Ouest fekk fi ay lycée ay ay ay ay ay AAM ay CA yu moderne nga xam ne dañ naan lii zone France bi ñoo ko ñoo ko financé la la Rufisque Ouest da nga waroon ñëw tey Rufisque Ouest doo fekk ay chômeur éclairage public bi insécurité bi waaye it xëyum ndaw ñi loole nekk ay mbir yi nga xamante ne daanaka askan wi duñu tay di ko réclamer. parce que man mënuma concevoir Senelec nekk suñu ginnaaw nii tout près tout près nii dernier nous Senelec mu ngi nii mais normalement environ jokkul bi yëpp dañ ko war a éclairer ba mu leer nañ parce que li daa mu war a mën a ne mooy Senelec tey <clears throat> ñaanuma ko yàlla mais bu jafe-jafe amoon bu kenn laa départ nun waa jokkul loolu njëkk a dem décanté situation bi kon donc ñoom war nañu mën a sóor waa jokkul xam ne lu si bari ñun noo koy recevoir noo koy jël. mu nekk ci wàllu infrastructure éclairage sax dafa waroon na dëkk bi duñu war a fay courant jàkka yi fi ne ak jumaa yi Senelec mii mënoon na jël en compte di fay facture yu jumaa yi ak jàkka yi parce que même pas cent mètres gis nga ko kon naka la jàkka yi nee fii ñun parfois dañuy couper courant nga gis Senelec tàkk leer nañ ñun suñuy lampe yëpp fay donc waruñu woon a sax fay courant. comme fi ñu ko fi ñu taxaw ni ni nga ko xamee ni bu la fi 19 fekkee doo mën a tee xam sa fooy jaar parce que day lëndëm le contrastes bi mooy Senelec baa ngi nii jigéen ñu waaye léegi li ñu jigéen nii mënul leeral loolu la ñu wax ne c'est pas normal buñ sañoon mu leeral ko ba si cimetière yi baneen bi tam mu exonéré suñu lieu de culte yi fi ne muy jàkkee ñu exonéré leen courant parce que Senelec loolu war na ko mën a def loolu nag wax dëgg yàlla boo jigéen nit ki yaakaar ne dañ ne gën a jige gën a yey. insécurité boo koy seet si dëkki cosaan yi la ëpp fii actuellement insécurité insécurité fi la bari te gisuñu kenn koo xamante ne kii mën na parce que boo xoolee police fa mu nekk dafa sori police boo ko oowee mun na la dugg bi day jafe wala génn bi day jafe dem fii ba am na problème yoo xamante ne yow doo si mën dër la dul population bi ñooy jéem a def seen seen seen kii te du sotti. kon insécurité moom vraiment dëkk bi am na fi ba mu doy parce que fii yaa a trop de laisser aller da ngay toog des fois sax di poser wu question ndax police am na wala déet te loolu si dëkk c'est c'est c'est dangereux même bu jàmm amee sax bu ñu toogee un mois auto police war na mën a dugg si dëkk bi sax daw nit ñi xam ne lii auto police la mais fii mën nga toog deux mois trois mois doo gis sax lu nuru auto police waaw kon ana sécurité. te moonte de foofe ca jokkul industrie yu bëri ñu ngi implanté wu ci gox bi te askan wi am ci yaakaar ngir rek ñu mun a wàññi chômage bi ci ndaw ñi. loolu moom di sunu si sunu bopp dëgg yàlla industrie yi nga xamante ni ñoo nekk fii jokkul en principe gisu si boppam parce que boo xoolee fii yaa une jeunesse boo xam ne mën nañu wax ne quatre-vingt-dix pour cent yëpp ay jeunes lañ. yow boo xoolee constat bi fi mu nekk nii rek nga xam ne amoonu si benn bénéfice pourquoi parce que ñii ñëpp ñu ngi dem géej tout le monde boo xoolee presque da nga naan dëkk bi ñëpp ay mool lañ kon industrie bi amaloon nu benn njariñ lu dul daf nu lor parce que suñu espace yi nu amoon fële jël nañ ko foo nuy sa suñuy soxna daan weer yoos di fa defar les poissons séchés jël nañ ko amatuñ fa amatuñ fa ba pare suñuy doom yi nga xamante ni ñoo fi nekk waroon na mën a jàppale kenn jëlu leen fa peut-être sur cent nga jël fa kenn mbaa ñaar sans importance bu pare xet gi jóge si usine bi si nun lay ñëw ti dëkk bi lay ñëw bruit bi nun noo koy noo koy concevoir mais kon usine bi lan la ñu jariñ mais de grâce usine yaa ngi gën a installé installation yaa ngi fi gën a bari mais système bi changé wul sauf que daa ces derniers temps ci gis naa ne daal am na benn commité de veille bu maire créé ci maire commune de Ouest nga xam ne suma frère moo ci ne Guèye Bamba sama doom la ak euh, Mor Ndiaye ñu avec toutes les ouvriers de Rufisque Ouest maa ngi gis ne foofu mu ngi am amélioration parce que ñu commencé di def ay recrutement di parce que léegi boo boo xoolee tefes gi fii dafa pollué parce que li usines yi tuur si si si si géej gi tax na léegi jën wii daan teer mënatul ñëw. on ne parce que fi mu nekk boo boo da nga daan toog fii di gis mbaali yuus bi di daw si tefes gi jën yi di daw di leen di leen jor ngay profité di si mën a jàpp di si liggéey mais léegi da xool ba sa bët jeex doo si gis dara non seulement doo gis mais mbeex mi fi amoon nga nga amoon courage sax di si sangu léegi mënatoo si sangu pourquoi parce que dafa polluer parce que déchets déchets usines yooyu dugg si biir moo yàq tefes gi yëpp non seulement boo demee si suuf si sax ba nga xool que na suuf sa mel léegi boo ko xoolee da nga di nga xam ne suufi géej si dafa dee bokkul ak suufi géej si jëkk sa coxalaan yi fi daan am amatu fi arga yi daan am si booru tefes gi di fi ñëw yooyu amatu fi pourquoi parce que ndox mi dee na donc usine bi daal vraiment nun gisuñu si suñu bopp du si industrie du si euh, emploi du si du si liggéey yëpp géej bi te non seulement loolu dañu daan promettre ne dinañ leen dimbali mais gisuñu si menn ndimbal moo xamante ne bii ñëw na si dëkk bi ñu ne lii si industrie tel la joge kon nag indi euh, usines yi vraiment ñun amaluñu benn njariñ lu dul lornu bien vrai que nun parce que pour nga mën a dem foofu liggéey il faut nga am métier mais comme nun am na si ñoo xam ne am nañ métier mais majorité bi amuñu métier parce que ay mool mais war nañu mën a bàyyi xel si beneen façon mooy par rapport ak li ma la expliqué nii supposons tey ñu ne kat dañ dugg a jokkoo renforcer li nga xam ne ni mooy éclairage public éclairage public bi. nit lépp looy looy laaj nit ki day fekk nga am métier moom su fekkee ñun ay pêcheurs lañ dem di laaj euh, wàllu soudure dafay xawal difficile bu fekkoon teñ ko lañ dañuy yor seen métier dem taxaw jëluñu leen bu ko rogee man dinaa mën a yëkkati suma kàddu wax ko si rajo bi. parce que tamit loolu rek mooy moo fi ne nga gis koo xamante ne man sa sa kàddoom dina yegg foo sa kàddu yeggul comme yéen ñi surtout suma kàddu gi dina yegg foo xamante ne tey bu yeggee grâce à yéen moo tax. naka noonee barrage bii nga xamante ne moom la banque mondiale ak commune bi daal di taxawal foofee bëgg nañu askan wi fonk ko lool waaye di ko toppatoo bañ ci tuur ay mbalit. ah non parce que ñi ko defaroon daal bu dee ñoo ko war a suivre bañ fa bañ ci paree lañ lañ lañ lañ lañ fi jóge donc je dis que amul suivi amul suivi parce que bañ ko defaree ñoom lañ fi jóge moi je ne fii moom xaw ma. sonore pollution atmosphérique parfois ñu déverser ay huile en mer mu tuuru si place bi yàq fii lay newoon fii nii nal place bi ba kenn du ko mën a utiliser. waaw barrage bi fi mu nekk nii bu ma ne la baax na it damay damay nax sama bopp baax na mais amul suivi te xeer yi day xeer day dox fi mu ne boo xoolee ni mu meloon daaw nga ñëw ren ji di nga xam ne am na changement. parce que di nga gis mu rës di gis mu mu am am espace yoo xamante ni ndox mi mën na fa jaar kon au fil des années buñ ko buñ ko bàyyee nii te kenn toppatoo ko day lépp day mujj yàqu lanu doon jooy mu dellu sewaat kon nag il faut à temps ñu ñëw xool ut suivi def ko si barrage bi parce que barrage bi am na utilisé boo xamante ne bii bu ñu ko bàyyee nii la muy jur mooy gën a mooy gën a metti réparer barrage. ci loole am na it canaux d'évacuation yi nga xamante ne ñu ngi foofee ak it pont bi nga xamante ne yàgg na bi mu yàqoo ba tax nañu ci sàkku ci autorité yi ñu defaral leen ko. benn problème boo xam ne bii fii si jokkul si armeel yi pom bi si armeel yi dañu bëgg autorité Tëngéej yii ñoom ñëpp ku ne jaar na fi ñu jàppale ngir yàlla ak yonante ba ak jëmmi Rasuul ñu defar ko parce que armeel yi lañ am ku ku gaañu fii lañ lay suulte te pom bii oto yi duutu mënatuñu kaa yéeg parce que pom bi daanaka dafa yàqu daanaka dafa yàqu ki si yéegit it risque rek nga si yéege nu bëgg nag ñu dimbali nu te yàlla rek tax nee nu dimbali te yàlla tax képp kuy autorité si dëkk bi war nga see teg loxo képp kuy autorité si dëkk bi war nga see teg loxo. mbokk yi euh, lii moo nekkoon grand reportage bi nga xamante ne moom la ñu leen jégleeloon tey jii euh, donc ci Jokkul nekk Rufisque Ouest dans le département de Rufisque mu nekk ay joytu yoo xamante ne population yi fi nekk tamit aussi wax nañ ko mais lu jëm ci wàllum euh, barrage bi nga xamante ne moom lañu leen euh, jégleel fii te mu nekk barage boo xamante ne pour xeex lépp lu jëm ci wàllum avancée euh, géej gi ak érosion côtière bi ne tamit wax nañu lépp lu jëm ci wàllum emploi des jeunes yi ak usines yi nga xamante ne yooyu la ñu installé fii te askan wi gisu ci seen bopp rawatina ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk fii moo tax it euh, ñu porox ndollu ci di wax lépp lu jëm ci wàllum éclairage public bi waaye it tamit insécurité bi nga xamante ne ñoom jàpp nañu ni euh, mu ngi ci quartier gi te police tamit aussi néew na lu muy tegee fii tànkam mu nekk ay euh, wax yoo xamante ne taataan nañ ko ci askanu jokkul di leen sant di leen gërëm li lañ leen indiwoon tey jii ci reportage ak découverte fii ci jokkul di leen sant di leen gërëm ba beneen yoon incha allah.